dama ne Azur ñu fa nekk dañoo. de retraite donc suñu rond point boobu bu juuti ba. bu ma ñëwaat fii di ko waxaan nag jàpp leen waaw. kàmba ga na ngeen ko suul wala ngeen des ci noo leen taf jëngale ngeen def bi président Macky Sall waree ñëw foofu conseil xam présidentiel xaw ma mm. Mm. ci saa si fépp la ñu def dafa yëpp maasale lépp lépp peinture ak taf jëngal matul weer wala ñaari weer lépp yàquwaat boobu moom da ngay xaritu Bougane Gueye Dany mu di Mansour Faye yaakaar naa ni <laughs> taf jëngal beex yooyu en tout cas jàpp leen non mais c'est non mais c'est grave ce que Euh, euh, kii maire boobu Cheikh Béthio. Macky Sall ci boppam moo ko lancé inauguration. dafa leen leen gis jardin public bi. allez-y voir. c'est beau c'est bien fait ou pas. <laughs> en dégradation. aywa mi ngi noonu nee na le trou est remblé hier soir mais c'est une solution provisoire par des gravats dañu wax loolu. Cheikh waxuñu ay gravats. nañ ko defar tali jàkk waxuñu ay gravats sotti si ay xeer soxla ñu loolu loolu buy taw lépp di dañ. te day gën a yàqu. te nawet baa ngi ñëw. Cheikh nañ ñu dimbali ci loolu. beneen programme euh, samay jigéen yi nekk jokkul xam naa ne fu mu nekk ñu lay fii ñu nekk jokkul ñoom jama saw ak ñooñu dañ ma bëggoon sargal tey jii mais sargal oh. bàyyi laay mm-hmm. maa ne bu leen sargal yëpp jox leen ko sama cousin bàyyi laay Abdoulaye Fall mm. donc tey jii si ngoon foofu sargal bu mag <laughs> waaw maa mbay Abdoulaye Fall mais Abdoulaye Fall laa ko jagleel lépp mm-hmm. parce que lundi le jour ouvrable mais bon comme moom moo fa moo fa gën a jige mm-hmm. leen ñoom jama sa waax ñoom yaay laa yaax euh, ñoom Anta Mbayaax ñoom ñëpp tey jii sa buntu sama sa buntu kër maam. bu mbayam ngay juuf. moi je fais mi comme font les enfants. waaw defal nii rek. Mm-hmm. bàyyi ma rek may def man su ma jógee yow noo toog encaisser rek. <laughs> yëg leen ci kaw turbine bi ñu waxtaanee fii réew mi toll fii réew mi toll politique bi daf koo téye. Mm-hmm. yéen a ngi wax naan ay ay bi euh, bipolarisation truc xam nga commerce triangulaire dafa am. <laughs> waaye politique triangulaire moo am ci réew mi fu mu nekk nii. déet waay triangulaire am ñett ñoo xam ne nii <laughs> dañoo bëgg ŋàbb mbir yi da di da wax moom. de nga maa la wax nii. ñana. politique triangle naa la maa ngi ñëw léegi wax la ñett yi. ñu ne triangulaire triangle baa ngi nii. triangle pyramide la may saf. triangulaire wala triangulaire. ma bu léegi bi laa ko def. <laughs> waaw triangulaire. <laughs> nee nañ fu mu nekk Macky Sall fu mu nekk nii dialogue ba mu wootee di nga cëf wala di la nga jay xeej yéen a kaay groupe des médias moo ko wax nee na fu mu nekk nii euh, nee na kaay leen ñu waxtaan yéen opposition bi. mais opposition fi mu nekk am na lu ñu teg wax ji wax ji mooy waxtaan woowee ñu bëri ñu ngay njort ne kon amnistie bu Karim euh, bu xalifa sàll mi mën na cee bokk waaye nag Khalifa fu mu nekk nii moom yëyul yàbbiwul kenn dégg ko mu wax mi ngi mu ngi continuer ay ay ay ay tournée am. waaw mottali yéene la woote moom Khalifa Sall. waaw lépp dafa mel ni kon moom dafa jàpp ne amnistie bi mat na ba noppi. en tout cas mu ngi koy xaar moom waxul pipewul moo jàpp na ne kon daanaka amnistie bi mat na Karim Meïssa Wade blanchi par les résultats de. la par les résolutions de la CEDEAO et des Nations Unies yàgg na ñoom wax nañ ñu wax fa dëgg neex yàlla Karim mii lu ñu koy toppee dara amu si mhm. war nañu mën a tëggaat procès bi ñoom waa PDS lañ bëgg kon nag Karim Meïssa Wade bu dee CEDEAO rek ak Nations Unies daanaka dana bokkaat ci élection yi ce sont des institutions waaw ah, waaw waaw waaye est-ce que ndax dañ ko respecté yàgg nañu jël ay décision te ko respecté wu mm. am na jàng nañ jël ay. seen le Sénégal est pays souverain. moom moo kadi ma wax loolu. déedéet waa CEDEA wala président Macky Sall. Ah, ah en tout cas Karim bu desee si CEDEA woo rek. ak Nations Unies kuréelu mbootaay xëy dana bokk ci moom Mamadou Fofana nee na weeru mai bii na ngeen ko xaar. moom Karim Meïssa Wade njaag bu ndaw fu mu nekk nag Idi nee na ma bëgguma dil dil dama ko allergie daraay dil doxuma ci ñii di wax ne damay dil à président Macky Sall nan ko baax. waaw mais protocole rëbës mooy ma moo tax sànq may laaj ndax ndax deal ak ak protocole. protocole dañoo am différence wala déet. ah si man kay man kay ah waay waay waay. deal du waxtaan ba déggoo. protocole du waxtaan ba déggoo. waxtaan ba déggoo la rek. waa léegi Idi nee na bëggul deal. lu ñuy nëbb ak lu ñuy dul nëbb. waaye waxtaan ba déggoo la rek. Idi nee na bëgguma deal bu ma kenn wax waxi deal parce que dealuma. kan lay dilal fii. waaw audience de midi mooy lan. ah bu ah bu fajar. mais bu demuloon waxtaan yi est-ce que kon dina toog ci bangu. conseil boobu muy bëgg a démissionné tey dinañ ci ñëw loolu ndekete ah, warugar la woon warugar waaw <laughs> moom kay daa dil dil diggu ko mu génn si ba mu set wecc moom daal nee na idi nee na tuf li na xaaxit na def na lépp ci kaw dil bu ko kenn wax waxi dil moom du dilkat boo ko xoolee xam ne du dilkat nee na man boo ma xoolee xam ne man dil daraay dil doxuma ci Ndaamal Kajoor mooy wax déclaration de non candidature libération des détenus politique en tout cas waa F24 nee nañu pour ñu dialogue faw conditions yi daal di am. mu leer Sall na wax ne dama bokk ci élection yi benn. Mhm. nga xam ne jàpp nañ te ñu ay détenus politique na leen ba ñu génn conditions yi la ñu teg ñoom. maa waaw NTM ak la NTM mooy non en trois en troisième mandat. waaw waaye détenus politique yii. nañ leen génn ci kaso bi parce que kaso bi fees na nag temps yi. nañ leen wàññi ci kaso bi criminalité euh, phonique noonu lañ ko tuddee ay ay ay laafu euh, gaynde géej lu am solo gaynde géej dañ koy soxla laafu gaynde géej mm-hmm. akaan njariñ garab long de requin njariñ laa fu génn géej yi am na si ñoo xam ne nag dañ dañ leen jàpp ñu yor si ay saaku yu bari yu nga xam ne bu ñu ko xaymaa toll na ci 418 millions douane ñoo leen teg loxo jamono joojee ba tey ci wàllu politique bi diine ji ma ay dara xalif de Xaadim sa Thiès. sama xaritu bopp. maa la wax lii benn dëkk ñaari gaar. waaw ah amul goroom. <laughs> bàyyil noonu. am na goroom. bàyyi loolu am na waaw. goro gi fan la. goro goro ci goro ci leex ya. goro bi ci. nee na képp ku nga xam ne nii. dal nga si sama njaboot. njaboot te njabootam njabootu gorom la. goro nay leer. xaa yaa ku nekk séeréer. waaye nee na xeexam du ngànnaay xeexam du wax ñu ñaaw. calal la. ah. ñaw ca xale maam gën a jël ci sirata mustaqim soppi ko def ko jaasi. Mhm. loolu sama maam El Hadj moom moo ko moom. ci yoonu sirata nee na képp ku laal sama njaboot. li li li kii doon wax. kii ah, jaraaf Youssou Ndoye <laughs> xale yi jiital ka naan kaan bu leen ko yëngal waaye mu a kam a yëngal xam. <laughs> bu leen ko yëngal bu leen ko yëngal waaye xam. <laughs> waaye kii nee ay ku sama njaboot. Mhm. ku laal sama njaboot. eh koo dinaa di nga jàkka dinaa jàkkaarloo yow. Mm-hmm. te dinaa defanteex yow defante goo xam ne da ci bëgg a génn mu lay tëj dee dina la gënal dund Cheikh Nema dara mii xalif des xaadir mm-hmm. kii si frot si pik day leer lu samay kàddu waaye nag imaam yi ci euh, euh, euh, korite ren ji xutba gi ñoom ñëpp woote jàmm la def woote jàmm sunu imaam grande mosquée bi gars yi maa ngi koy gis am ñuy wax ci moom en tout cas li mu wax man sax dama koy wax mm. bi yee boo ku nekk na cotiser sunu jumaa jee <laughs> jumaa jee Tiwaawan be bii. ku nekk na cotiser ñaar yëpp bee ku nekk na cotiser waaw parce que ne dañu bëgg mu gaa pare. ñun ñoo ko moom ñu ni neen. bés bi le jour Macky idi acte le divorce le jour de la Korité kon nag wax fa dëgg neex yàlla. ànd neex na. waaye lëngoo neex na dagan na. neex na waaye koo bàyyi moo dem ak ay mbagam waaye tamit boo demee bu mantu leen ànd na ku nekk dem. si jàmm mais kan moo nar a nekk ah. dañoo bàyyante d'un commun accord. boo tax dañ ko waxtaane dañ ko waxtaane ba léegi man. alamiyaabal lañ ko def di alamiyaabal. ba léegi ah. ñu ngi ci combine bëre boo xamante ni. waay waay léegi est-ce que est-ce que passé ko seede am na ku ko ah? ce ah, que du doon baara euh, yëgu. Euh, après moo tax nga divorce moom tawuta parce que après. jubóo day am mooy tax. jubóo day am que. man ngeen divorcé si defante. après ku nekk day rus. mais est-ce que du mujj ci marché mu santé. mu santé ku nekk di xool yëpp sa jëkkër. marché mais mais kan mu nar a nekk remplaçant dire que dañoo xuloo. non non non non ñu ngi déggante téléphone. yaa ngi waxante ku ne yaa ngi jox sa morom cër. ñoo bokk ndey ak baay si langum politique gi mënut ñaaw nii rek la mën a demee mais la grande question c'est qui sera son fameux remplaçant. de kan ci Idi. waaw ah. ku koy remplacer. attendons de voir loolu mi ngi ci loxo Macky Sall. président Macky Sall moom moog man na ma fa teg man mii sax. ah bu mu leen bett da ngeen jékki-jékki sama kii. xam nga gars yi yow loolu décision Macky Sall la. man kay Ansoumana Dione laa gën a gis. Ansoumana la non <laughs> Ansoumana mi ngi gisee te man ma nekk. Ansoumana Dione laa gërëm. se Seck je dépose ma démission du conseil économique social environnemental tey jii ci ji kon nag tey jii ku bëgg gis ndaamal Kajoor sañ sa ba jekk def cravate wala na papillon. fekk ko sa buntu palais de la république. sol dàll yu yàng. sañ sa ba jekk. président Macky Sall nee na ko. c'est vrai. ah oui. nekk une belle occasion. oui dindiwaale ko benn. amul ah, ah, njëriñ. la. conseil économique. Ah non mën naa am njariñ peut-être ni moom moo amul njariñ mais mën naa am njariñ comme parrainage bi am na njariñ peut-être ni ñu moo des. en tout cas président na. dama ko wax moom ndaamal ne ko wax fa dëgg comme te candidat nga dama gérer rek moo gën nga leneen lu lay xatal parce que fii ci réew mi de boo bëggee nekk président faw nga battre campagne bul am dara la am complexe yow dama rek gérer sa candidature loolu président Macky Sall wax les ministres de réew mi mu nekk nii ñoo ngi toog di xaar ñaata lañ si am ñaar Mm-hmm. ministre des sports Yankhoba Diattara ndax dafay tekki ndombal tànkam am déet li ci kanam raw li ax ak ban ci ministre de l' élevage la wala beneen bi Aliou Salé Diop élevage Salé Diop productions animales ndax dañuy tekki seen ndombal tànkam déet li ci kanam raw li gën xalif général kullu murid borom mbégte mi Serigne Bass Abdou Khadre Serigne Mountakha al Mountakha Bassirou waaw woote na jàmm ci euh, euh, korite gi ndax lu dul jàmm jàmm ko gën jàmm joojee ci euh, korite gi daanaka xutba yëpp mu ngoog imaam yi nee nañu jàmm rek la ñu bëgg jàmm ci miim réew kon nag nañu ko waxtaanee nga ne euh, je rappelle juste que avant weeru koor gi da ngeen mhm. seetlu ni kilifa diine yëpp duggandoo xëlwa sëñ Muntaxa ubbee ko mhm. mu demoon xëlwa fanweeri fan ak ñett yaakaar naa ko boobu ba léegi jàmm ngi am kon kilifa diine mat nañoo bàyyi xel ndax am na loo xamante ne mi ngi xew fii te ñoom ñoo ñu koy sàmmal si bàttin kon ñoom bu ñu woowee xutbal ñu li nga xamante ni moom moo di waxtaanu jaam ñun li ñuy war ak suñu doon suñu wareef mooy ñu fexe ba dox ci jaam c'est important. Mhm. nañ ci bàyyi xel bu baax. seule une amnistie ou une modification des articles L29 30 pourrait rendre les deux. cas absolument de la part de Pape Bokar Diallo 18e arrondissement. nee na nag moom analyse politique la. nee na benn modification la rek. ou modification des articles L29 et Ah, Karim Meïssa éligible loolu mooy droit Guy Marius Sagnan am na euh, demande bu mu ci def itam à l' assemblée nationale. proposition de loi oui juste de loi. waaw mooy mooy sàkkuteef modification article vingt neuf trente parlementaire conseil économique est ce que présidence bi est ce que kii Habib Niang xaajul foofu. Habib Niang ñu ngi lay nuyu moom it. waaw mooy fas yéene jàkk fu mu nekk nag président Macky Sall faw mu ja am ku ku jàkkaarloo Idrissa Seck. sa Thiès donc Habib Niang yow am nga combat bu rëy. yaa Idrissa Seck sa Thiès. ça peut être Abdou Mbow aussi hein. ajuma dañ koy dégg eh. l'info yéene kaay nee na Alioune Tine wax na fu mu nekk nii nag mu ngi euh, maanaam accélérer la cadence ki nga xam ne moom mooy euh, président Macky Sall nee na wax ji wax ji ngir mu gàtt wala mu mu ngir mu gàtt ñu tëj lépp nag moo di nii wii nii noogee ngay jël teg ko ne te wax ne dama bokk benn rafetlu na nag président Macky Sall jéego bi nga xam ne daan ko def na ko ngir nag euh, woote woote ak jàmm jamono joojee de le mandat mi ngi dikk ci waa ki nga xam ne mooy professeur Ndioro Sow fu mu nekk nii moom mi ngi bokk ci CAP 2024 candidature bu Alioune Sarr mu ngi cay wax nee na troisième mandat bi wax na ci réforme des institutions wax na ci moom professeur euh, Ndioro Sow moomee nee na nag benn candidat la ñoom am moo di euh, ñoom waa CAP 20 euh, 2024 moo di Alioune mooy seen candidat Alioune mu ngi nekk ci AFP donc moom ci boppam nee moom la ñu samp mooy seen dënd te nag yaa ngi doon wax sànq ku am programme ñeneen seen programme bokk na si bés bu ñu leen tegee ci ne kon euh, euh, euh, chef de président de la république mënatoo nekk chef de parti mënatoo jiite également conseil de la magistrature ñoom en tout cas foofu la ñu teg seen tànk en attendant ci seen programme ñoom waa CAP 2024 le temps nag ñuy samp ki nga xam ne mooy Alioune Sarr jëm ci troisième jëm ci nee na moom mooy seen candidat ci présidentielle deux mille vingt quatre mu ngoog ñu jeexale présidentielle 2024 boobee le Sénégal en salle d'attente le président maintient le suspense mu ngoog divorce à l'amiable moom lañ doon waxtaanee sànq euh, ngir nag malgré la séparation les deux leaders continuent de se parler et de lan de de, de filer euh, la parfaite entente moo ngi noonu divorce à l'amiable rek na rafet rek ngir ku si nekk mën see gis sa sa sa bopp. très bien très bien mu ngoog ñu jeexal ah. ñu jeexal waxtu bi jot na waxtu bi jot na. waaw waaw lu ma ci xam xanaa ñu jéexalee rek. sa sax benn simin. waaw ma ma ma ma ma jeexalee kii rek ki nga xam ne moom mooy docteur Papa Amadou Ndiaye moom moo jiite l' artisan euh, ministre de l' artisanat ci corté gi xam nga ne defal ma defal jàppal ma jàpp gi am solo sa Thiès nag taxawuñu fa ñu am solo. lu bari jox na leen dimbal bu nga xam ne daanaka lu jëm ci pomme de terre sobleex yooyu. Mhm. ngir ñu mën a amal seen feetu euh, euh, Korité sa na mu waree moom mooy directeur de l' artisanat ministre Papa Amadou Ndiaye foofee sa Thiès. Korité 2023 gi taxaw na leen. mi